bàngoo laa nekk Bango écrit Soumbédioune. Bébé Diène bu fekkee combat benn man fonk naa ko téeméer. barke sëñ Abdou Karim Mbacke boo taxawee dama lay duma boo bëree dama lay daan. bu fekkee gor rek yaa ngi dégg de na taxaw nu jaayante ko ma ak moom foofu daañu ba xeex ko raw. barki sëñ Aliou Mamou booy kayreet ko man pour muy leer. barki Serigne Touba booy kayreet ko xeexloo ak man. Ali Mbaye mën na toog kër ga. Sidaati mooy ñëw. waaw Ali Mbaye la ne na ci bokk yam day toog kër ga bébé bi ñëw. waaw damay toog kër ga boo xamee na toog kër ga xajal kër tournoi bi tournoi doom ñëw ak ñeneen ñeneen ñi de incha allah. <laughs> waaye xaali mbay la maa dëgg ngay ndellu rek xam naa sonn si moo la daggal yàpp ak foie tabaski bi xam ma nga lekk ba suur xëy lënd bi dem saal pompe say affaire bàyyi ma njoot bàyyi ma la xel sax. ah ma daan de. <laughs> asalaamaaleykum mbokk yéen ñuy suivre ci seen site internet lu tv com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare tey vendredi 4 août ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay yi comme ni ngeen ko amee chaque jour ñu ci ànd ak journal sunu làmb di ci ànd ak waa Vice FM ca Gambie di ci ànd ak Mbirkilaan FM ci Saloum ah di nuyu di jëmoo ak Babacar Sarr tey nag Jamaïcain lañ ci àndalaat borom Gambie ah, maa ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyu Lamine maa ngi lay fay di la ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokk internet yi ñu suivre ci luttetv.com yëpp. Mhm. fépp fu waay mën nekk ci àdduna ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax. Mhm. comme ni nga ko waxee. Mbirkilaan FM ga sa Saalum Vice FM ga sa Gambie di nuyu waa Gambie di nuyu waa Mbirkilaan Babacar Sarr di ko ziar bu baax di nuyu Abdou Darame borom Mbirkilaan depuis États-Unis moom tamit. di nuyu Abdou Darame sa copain. Darame sama ancien copain maa ngi koy ziar. na rek. non moom bu defee lu jar xuloo rek ñu xuloo. Hmm. waaw xuloo moom bonul tooña bon te moom day tooñ. nee na moom bul topp jamee kii rek day dugg ci xuloo. loolu lay wax waaye moom mooy tooñ rek moom ku xuloog moom moo la tooñ. ñu ngi koy nuyu ci àdduna musul musul xuloog nit ak tooñut. Hmm. ñu ngi koy ziar di nuyu doomu Sénégal yi nekk Amérique yëpp fépp fu waaye mën a nekk ci àdduna ñu ngi lay ziar bu baax baax a baax. jërëjëf Jamaïcain loolu am na solo dañ koy commencé ci journal bi génn démb mu ñëwoon ci MMA wàllum MMA yaatal ci lu baree bare bare mu mel ne sport la bu nga xamante ne instant bi mu ngi wane boppam ci arène bi mi am na loo xamante ne daal combat bi wala boog sport bi mi ngi koy euh, nangu ci MMA ci ci li nga xamante ne moom mooy arène bi art martiaux mixte maanaam wàllum xeexe daal yu baree baree baree baree bare la boole bañ tuddee ko li nga xamante ni moom mooy MMA bëri am na ca boxe am na ca karaté am na ca yeneen ak yeneen waaye nag dafa nekk sport boo xamante ne bi mu dugg Sénégal dañu waxoon sport bu violent la waaye ak lu mën a xew daal instant bi Sénégalais yi ñu ngi koy dund ndax mbër yi ñu ngi ci dund bu baax a baax. waaw Lamine sport bu doy waar la man dama man sport bu amul règlement laa ko tuddee sport boo xam ne est-ce que matt sax bokku ci ndax gars yi lu ne la ñuy defante seen biir. waaw bu fekkee bi muy dugg ci réew mi waa réew mi dañ doon wax mbëri ñooy génn dem ci biti di ko fekk léegi. Mm-hmm. waaw parce que lu ci ëpp fa lañ koy defee liñ fi defee MMA mm-hmm. nag suñu champion yu bari dem di fa di ko pratiquer ji. Mm-hmm. waaye daal képp kuy doomu Sénégal am ci combat dañ lay ñaan yàlla may lañ ci ndam lu sedd guy. waaw ñoom bu ñu fa nekk di di dem a rafetal ak ni laa war a gañee nii laa war a daan waxtaanee ndax ku ci nekk la nga am moom nga fa yóbbu li nga am moom ngay duggee marché ñii ay taekwondo lañ ñii karatéka lañ ñii jiu-jitsu lañ def ku ci nekk ak sa sport ñoom bëre lañ gën a pratiquer bu ñu demee nañuy jiital bëre bi di mujjee xeex bi ba nag nit boo ko fekk see si maninam tout le temps mun na la nuwaay daal MMA moom am na doole léegi ci làmb am na doole ci làmb réew mi mi ngi am doole ci àdduna bi ndax boo xool année quatre vingt ba quatre vingt dix yi dafa mel ni ci la MMA bi commencé am doole wala boog ci lañ ko commencé ne moom mooy MMA en deux mille dix neuf. waaw deux mille kon France que mooy Sénégal. Hmm. waaw kon France comme deux mille dix mooy ñoom nekkul noonu. sport boo ne bokkoon nañ ci sport yu ñu reconnaître hmm. waaw ñun nag du daaw lañ ko accepté ndax. waaye euh, deux mille ñun tamit deux mille dix neuf parce que boo xool rek rek waaw combat boobu ñun Gambie la ñu fekkoon. ñoo ngi doon boobu dañu dañu dañu pare kii bi rek. Ah. dem jubali Gambie. dem jubali Gambie wax nga dëgg waa kon ñun tamit ñoo France ñoo ko accepté ndoor. daa mel ni oh, oh, bu ñu ko toppul tamit bëri na loo xam ni ñu ak ñoom ñoo ko niroole. ndax nag ku ne France na Sénégal. Mm. macha allah loolu am na solo Rocky Balboa ak Bombardier tamit bokk nañ ci sénégalais yoo xamante ni ñoom ñoo ci njëkk wane seen bopp bu booy fàttaliku combat Rocky Balboa Rocky Balboa ak mm ak ak ki nga xamante ni moom mooy Bombardier moom la ñu wane nii keroog bi nga xamante ni Bombardier am na ndam ci kawam mu nekkoon ñaari sénégalais ñu boole leen ñu ñu xeex ba pare ñu jox Bombardier ceinture ba bañ mujj di joxante loxo. waaw diggante Rocky ak Bombardier ñaari sénégalais woon ñu boole boole leen fii ci bëre dóor seen seen du fi amee. Mhm. gars yi da mujj soppi combat ba MMA yóbbu ko fële Bombardier am dam ci kawam. Mhm. moom lañ ñu wan image bi nii yaakaar naa suma juumul ñoom ñaar jëf est-ce que jëflante wuñ ñaar yoon. Bombardier ak benn yoon waaj waaw waroon na taxawaat mm. xaw ma nag ñoom ñaar seen diggante combat boobu noonu fan la toll waaye nekkoon na combat boo xam ne combat bu difficile woon na ci Bombardier ci ci Rocky ci ci waaw difficile na ci Rocky trop yomb ci Bombardier loolu am na solo Jamaïcain Siteu tamit wane na ci boppam ndax def na ci trois combats am ci deux victoires ak benn défaite boobu ba léegi sax gisuñu ko moom mu wàccaat ci MMA. moom ba mu ci duggee ñett la ci def Lamine ñaar la ci gagné ko ci benn ñaar yim ci gagné waaye biñ ko ci gagné nag métti woon na trop. xaj na loolu moo tax ñu naan reculer premier sauté ndax du yoon hmm. mu ko mu ciy duggaat di erreur yi ko ci daloon di ko ci dalaat xam nga xuwaan xuwaan waa xam naa ko moom tamit mu ngi nii ma ma mu ma ngi ci MMA ba UFC la nekk waaye nag nee na bu fekkee def nga kaw bu jaar yoon di nga amaat lu tolloog cinquante mille dollars boo xamante ne bonus lay doon. moom lañ lay jox ci MMA bi. bonus bonus. bonus mooy dañ la koy yokkal. waaw ah loolu nag waroon na ñëw ci làmb ñu ne mbër mu daan wala ku daan top 5 wala ku dóor mbër mu daanu. waaw ah, dinañ la yokkal temps dina gën a tax mbëri di gën a kii xam nga loolu yëpp da lay motiver ci biir sport. waaw xawaan nag moom soo ma ko laajee xam naa ko bu baax a baax a baax ndax ah, bi ma wàccee dëkkam. xawoon fa am yenn gàllankoor tuuti. Eh, xaw na ma ci génnee ndax bi ma laaj waa ji laajee yu noo xawaan ma ne ko yes I know Juan very xam nga am na ci yu bari yoo xam ne génne na ma ci. kon Juan. maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Espagne yëpp. kon loolu euh, euh, yëpp jot na laa foofu ah Espagne. Îles Canaries dëkkam dëkkam dem naa fa bi ma wàccee. Mhm. xawoon fa am tuuti gàllankoor aw moon sama réservation hôtel laa kii woon. <laughs> gars yi ne ma doo dugg. xam nga ma wan leen ne man ci li sénégalais laa nekk. ñu ne ma ndax xam naa Juan. waaw may leen waa xam naa Juan. xam nga après gars yi xam nga. yaa ma gën a xam. waaw kon daal xuwaan moom maa ngi koy nuyu bu baax. jërëjëf loolu am na solo moo tax Reug Reug tey jii dina jàmmaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy Boussa Sa Reug Reug ku ne xam na ni digganteem ak Bombardier mu ngi koy xaar waaye Boussa Sa nag la war a jàmmaarloo tey di brésilien boo xamante ne bu mu duggee ci MMA ba léegi mosul am defet ñu ñaan Reug Reug nag yàlla yombal ko lool lool lool gis nga ñoom ñaar dafa mel ni taxaw nañ ku nekk jaaw karloo ak sa morom su meeku. waaw gis naa image bi Lamine muy Boussa Sa ak Reug Boucher Sa nag moom adduna bi ko ku mu man li ma ci jaaxal ne ma yow sa mbër mi kum jël xam na ko est-ce que muy Boucher Sa eh di ñaan ci réew mi yëpp eh. na ko ñëpp jàppal kurus ñaanal ko mu am ndam ci bu Sa ndam lu sedd guy eh. ndax nag ndamam mooy sunu ndam mm. bu dara doomu senegal la dem di jëflanteeg champion wu de monde boo xam ne nee nañ musul daanu ci MMA kon rëg-rëg bu ko daanee dina am feneen fu mu yóbbu image senegal ci wàllu MMA mm-hmm. waaw dina am feneen tamit fu mu yóbbu image su làmb ku ci nekk sa sport nga am ñu bëri a MMA ak rëg-rëg yëpp bu sa saam yi avant muy dajeeg rëg-rëg musul seetaan làmb mm-hmm. te ku dem léegi mu ngi dugg ci vidéo làmb di xool rëg-rëg nan la mm-hmm. kon loolu am na fu muy yóbbu suñu image su làmb mm, waaw moo tax nag ma koy ñaanal mu am ndam ndax tamit bu amee ndam dina am feneen fu mu yóbbu na solo jameekee tey li nga wax dëgg la ndax booy xool rëg-rëg mooy mbër bi nga xamante ci wàllum bëre fii Sénégal vidéo bi mu am ci ay kenn amagu ko booy xool combat ak Elton bi mu duggee ci MMA beeg léegi la vidéo bi commencé naaw booy xool commentaire sax commentaire yi doo xam la lu ñu bind ay commentaire yu jaxasoo ay cokko la ñuy bind lu ne moom moo ko may MMA bi moo ko may MMA bi moo ko may moo tax chaque jour ma ne ñaari mbër yoo xam ne ñoom ñaar dañ dem ci niveau international fu kawe mm-hmm. ndax tey koy MMA dina dugg ci YouTube tappe xool kii ban mm-hmm. sport lay def lan la ma ne mm-hmm. loolu moo tax seen vidéo yi mook Bombardier di demee noonu waaw kon MMA am na benn côté boo xam ne am na lu mu mën a apporter lamb euh, Ligue sénégalaise. waaw waaye nag day fekk ñun ñu ciy am ndam. moo tax dañuy war a ñaan suñu mbëri di am ndam. bu ñu am ndam. Ah, ah, waaye jenn danse yi moom xaw ay buse saa yi moom yal na yàlla suturaal rek. ba mu am ci ndam lu sedd guy affaire bi mën a yéeg ci beneen niveau waaye yeneen mbëri nañuy bàyyi xel adversaire yi ñuy jël Lamine. loolu am na solo Jamaïcain Baye Mandione ak ki nga moom mooy Boy Bébé Diène Ibakaan cooki fin la ko tuddee mu war a am 13 août incha allahu rabbi moom nag dafa mel dafa chargé kii Baye Mandione mu mel ni moom instant bi xaaruñu dara dara dara ci Baye Mandione lu dul daan kii nga xamante moom mooy bé moom mooy Bébé Diène daan wala réer mooy ci li nga xamante moom mooy làmb ji. waaw loolu wax Ibakaan la Ibakaan mu ngi ñëw si sunu événement bi ñu tuddee cooki fin cooki fin nag maay borom bu ko fi kenn waxati drapeau Mansour Ba waaw drapeau Ba di ñaan réew mi yëpp ñu waaj ko waa Ndar waa soor waa parcel 1 ba 26 ak waa Sénégal boog laay wax ña waa ñaari tari Grand Dakar nañ xam ne seen doom moo xewle. Mhm. waaw combat boo xam nag Iba Kane moom cooki fin bi mu ngi ci dànkaafu Baye ma njoon moom dafa jël cooki fin bi tuddee ko njoon ndax nee na njoon lii mooy sa cooki fin. Mhm. daan waa réer ba may réer ba may nag. ñu dégg olof bu baax dinañ xam lan mooy tekk lan lay tekki ñu déggul olof nag bu baax xam naa mooy gàddaay wala naxsaay bàyyi làmb ci bakkan noonu la ko tuddee ama seen tafaatin jege na ci cooki fee wala soriwu ko non cooki fee moom ah, waaw waaw ah, waaw ñoom ñaar ñii leen des ñu cooki fin bëriwul de. Eumeu Sène moom ci cooki fin kon la nekk ndax journal bi loolu la ñuy wax nee na bii daal moom mooy jàpp ni moom la jàpp ni moom mooy li mujj pour Eumeu seen daal di tàllal loxo xale yi nag may leen sens. no wax na waaw Tapha Tine nag Eumeu Sène même bu fekkee Eumeu seen ah, Tapha Tine xale la. ama seen mageewu ko lu bari loolu noonu comme ni ko gars yi di waxee. waaw non daanaka bu ci jógee combat bi mooy bi mujj pour mu mat tàllal ko ku mel ay Sa ak ñeneen ak ñeneen loolu. waaw non moo jaadu ñoom mag ñi nag bëri nañ seen biir ba sonn. Mm-hmm. waaw xam nga léeg-léeg grand contre bi dafa war di am. Mm-hmm. bu ci jógee nag wàcc bëreeg booy jël lu mat ñeenti avance ci ay xale. Mm-hmm. ñu tàllal leen loxo bëreeg ñoom làmb ñu mën ko renforcer ci kaw. ndax loolu jamono ji làmb loolu la soxla. tey Bombardier bu ngi bëreeg euh, rëg-rëg yaa ngi dégg. Mm. ay gars yi ñoom nan sax bëri na bëri na ay ñoom Jackson ñooñu ay champion yoo xam ne làmb mu leen di bàyyi xel. Mm-hmm. ba ci guy gi ñoom nañ nañ nañ bëree seen biir ñoom i neen. Mm. kaw gi mën a ñaar mën ko renforcer xam nga làmb ji mën a avancer quoi Lamine. loolu am na solo pour làmb ji avancer foog Ama Baldé ak Gris Bordeaux bëre Amadou Kati Diop xam nga ko muy coach su Gris Bordeaux nee na du jël du ñu jël risque ci bëre ak ki nga xamante ne moom mooy Ama balde ci deux mois ndax aaju Gris Bordeaux may ko muy préparer combat ci deux mois. non coow li bari na Lamine te làmb ah, ah, bari na coow waaye bariwul problème mhm. waaw loo gis rek lu nekk dañu koy lijjanti yaakaar naa warul métti ku bëgg mhm. fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wéttali tëjal bunt du leen boole mhm. ndax jafe-jafe ji bëreetul lu doon jafe-jafe kay mooy amaana du ma bëree wala gëri na du ma bëree waaye promoteur bi nee na date bii laa bëgg mbëri nee nañ date bii arrangé wu leen nañ xool nu ñu toogee seen biir ñu waxtaan ko tour la table duwoo ci ay kàddu yoo xam ne mooy doon lu gën ci làmb ji gën ci promote gën ci promoteur bi. Hmm. ndax nag làmb dafa am communication bu mu laaj. làmb laajul communication boo xam ne da koy contrer surtout événement bu toll ni Gris Bordeaux. Hmm. bu demee ba amateur di dute ah dina am ci date boobu wala du ci am loolu. man dama gëm ne manquement lay doon ci côté promoteur promoteur moo ciy gaañu. Hmm. kon daal lu ci mënta xew CNG bi nga xam ne moo jiite làmb ji. nga xam ne arbitre la diggante promoteur bi ak mbër mi. na xool jéem a xool ñaari camp yi lu ñu toogee waxtaan ba dinañ tënku ci kàddu goo xam ne du lor kenn. macha allah. loolu am na solo Jamaïcain fi ñu jeexale mooy kii nga xamante ne moom mooy Papa Yade journal suñu laa mu ñëwaat di ko fàttali mu mel ni tëngéej ba léegi ñoo ngi jooy seen doom jooju gannaaw ba mu defee ñetti at ci biir suuf ñu ñaan yàlla mu yërëm ko te xaare ko aljana yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana sunu biir la bokkoon nekkoon ci làmb doon ku làmb yaakaaroon yàlla ñëw dogalam def li gën ci moom jël ko sunu làmb nag dañuy wane ne fàttewuñu ko ñu ngi koy fàttali ko te te démb boo xoolee stati njabootu làmb ñu ci bari moom lañ dugal te nit nii rek la mënal mbokkam mm-hmm. waaw fàttali ko di ko ñaanal suuf sedd ci kawam moom bépp jullit bu mu fa fekk ku ko fekk mm-hmm. waaw rawatina képp koo xam ni tey ci làmb nga nekkoon sunu borom jël la ñu ngi profité waale ci bisu Papa Yade bi bisam bii ñu koy souhaité di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana ak képp ku mu fa fekk la kontaan naa ci yow di nuyu waa groupe Lutte TV ñoom tuuti yaay Sarr Omzo bu Garga ah Serigne Diour loolu ca ca la TV gu njëkk gëla ñoom Arona Camara Kaolack Arona Camara ñu ngi leen di siyaar ah, baaxtu ci ay saar Espagne tigre noir ah. ak lës la nature xaw hës hës la nature xës la na teer maa ngi koy ziar baax ndooy la Pikine waa. ndooy la Pikine waa waaw ñooñu ñooñu. fi borom avion yi. yi ak Cheikh Bass moom nga xam ne commentaire moom. fi bi ñu jaaree goos mu jaar droite. xadaa fi borom avion yi vëb laay ñoom gauche xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar Aliou. lii waaw doom day Alaaji Mbay gauche ñoom ñëpp ñu ngi leen ñoom. Aliou ci li TV gu njëkk gële. c'est li TV gu njëkk gële ndax li TV nag Lamine dafa am ñoo xam ne ñu fidèle lañ man gis ah. naa ñoo xam ne. def wax nga dëgg gis ah. naa gis naa gis naa ñoo xam ne tey ah. TV départ ba léegi vidéo boo mën a xool di ngeen gis ñu commentaire si ñun dañ fidèle ci Lutte TV ne hmm. tamit suñu maman Adja Gass borom Gambie borom Angleterre Balaka ah, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax Matar Boussa Matar Boussa Abdou Dramé Aliou Ly hmm. xam nga ñoom fëgala ñoom ñëpp ñu ngi leen booy ba Abdou Tall bu xarañ laay bu def waaw ñoom ci Mam Balla Gaye ak Boissy Boissy grand Boissy grand Pape. Boissy grand Pape. waaw Boissy depuis Paris coach su Jabang. coach Ali ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di kontaan ci ñoom. saa bus pa maam tamit ñu ngi koy nuyu bu baax depuis Paris di nuyu maam Abdou Lion di nuyu Alain Ngom. Ah, di ko nuyu bu baax oncle depuis Hollande anem maa ngi koy ziar bu baax. di nuyu Abdou Khadir Jeylaani Puy. Abdou borom Suisse. Mm-hmm. maa ngi koy ziar di nuyu sama partenaire mam si tamit depuis Suisse benn Khadijatou Saw ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ziar White House Gambie Ah, Dj ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw. ah ñu ngi ñëw vacances lamb ji bu kii dañuy jël vacances Dj moo. Ah, waaw Dj moo ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di nuyu tamit Cheikh Abdou Bousso depuis Dubaï. waa Coykunda textile. Coykunda textile si saxo mu ngi bi ñu ngi koy ziar ak as Pate ñu ngi ñoom Gils Gils borom jant bi. Oh. waaw tey moom la dañuy fàttaliku suñu. ñu Père Ndongo Cissé. Alaaji Ndongo ñu ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla may ko wér bu baax a baax. Père Edi John xam ne bi ñuy jël lekket ci salle bi la ñëw fekk. fekk fa waa Edi John ndeysaan moom tamit. ñu ngi koy waaw kii mooy kii mooy Lamine Bulli ah. TV ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu Saw di nuyu waa Gàmbi yëpp dina nuyu Omar Seydi Kane au les maa ngi koy ziar bu baax a baax baax moom tamit. jërëjëf jërëjëf El Hadj Lamine. Bango laa nekk Bango écrit Soumbédioune. bu bébé jën bu fekkee ko combat benn man fonk naa ko téeméer. barki sëñ Abdou Karim Mbacke boo taxawee dama lay duma boo bëree dama lay daan. bu fekkee gor la rek yaa ngi dégg de na taxaw nu jaayante ko ma ak moom kooku daa ñeme xeex ak man. na lu ko raw. barki sëñ Aliou Mamou booy kereet ko xeexloo man pour muy leer. barki Serigne Touba Mbacke booy kereet ko xeexloo man. Ali Mbaye mën na toog kër ga. Sidaati mooy ñëw. waaw oh, xaali mbay dogoog xaali mbay la ne ci bokk yam day toog kër ga bébé bi ñëw. waaw damay kër ga boo xamee na toog kër ga xajal kër turam doom ñëw ak ñeneen ñeneen ñi de incha allah. <laughs> waaye xaali mbay la maa dëgg ngay ndellu rek xam naa sonn si moo la daggal yàpp ak foie tabaski bi xam ma nga lekk ba suur xëy lënd bi dem saal pompe say affaire bàyyi ma njoot bàyyi ma la xel sax. ah man day mbër mu xees ma daan de. <laughs> en tout cas bonne presse bu la